دار الهنا دار الهنا وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها دار الحبيب قلوبنا تهواها

di fàttaliku kàddu yi mujj wax mi ngi résonné ci suñu nopp ba léegi kon loolu dañ koy sant yàlla biñ ci yàlla boolee ci mbaaxam yàlla ci mbaaxam moom mbaaxu yàlla ak mbaaxu góor gi ak mbaaxu njabootam waaye ñu dund ko dundinu ku dal xel ndax xam nañ ne moom bis bi bàyyi woon na ko xel waajaloon na ko jullit yépp bis booba jàppe nañu ni dafa am ponk bu rëy bu xàppatikoo ci biir bëtima sariya ci bëtima nit bëtima sunna bëtima quraan bi mu fi jógee daara yëpp a jooy xam-xam yëpp a jooy ñëpp a jooy mboolem ñi nga xam ne ni dañ daan am tiis dañu koy jooy ndax moo daan defar tiis yooyu la xol yi naqar yi islamique bi ñàkk na waaye jàngu bi itam ñàkk na kan lañu ñàkk góor yàlla bi nga xamante ne léppam diine la léppam cofeel la ci doomu aadama ak kuy mindeef ku ñeme woon tudd yàlla la ak li muy mage mage ak li muy wéradi wéradi buy tudd yàlla dafay dangay defe ne sax góor gi nekkatu fi ndax yaram wu dal dafay concentré su ko weñ dalee yaa ko koy dàqal mais du ko dàq yore ku du sam lu mat waxtu ak nangam per yi rek ngay dégg mi nga naan tàcc tàcc ba dagg naan góor gi nekkatu fi bi mu demee ba pare mu ne ma demal nga indi jawahirul maani dañ ko daan jàng muy firi radiyallahu taala anhu ma indi mu ne ma seetal fi ñu yemoon may jàng muy firi ñun ñaar rekk a nekk ci néeg bi yàlla moo ñu ñetteel ñu dem ba ci biir ma siggi xool ko gis ne rongoñ yaa ngi wadd xar kanamam bu leer boobu simaahum fi wujuhi min athari sujud wallahi cheikh alhaji abdul aziz ko ko bañ gisuma la mbaaw ku koy tayane gisuma la mbaaw waaw siimaahum fii ngi min athari sujud xolam ba banyul na wicc bañul kuy nit ko xamne ki da nga dan dem jexsaw bay tabaxlu ay mbalka di ci def ndox ne nañ jël dugub def ko ci wet gi ndax picci yi nga xamne dañuy dox mission suñu timé suufu jexsaw gis ndox mi ak dugub ji ñu wacc naan lek ci continuer sen mission koku du bañ nit radiyallahu taala anhu boba legi ñaar fukki at ak ñentangi ni waye mam abdou aziz si daba radiallahu anhu lamu lambo won ci ay jikko yu rafet geej la tour wi wuyu na borom dabaax lañu ko dakantale mom moom ye la ko fi ne ka khalif general du tiaxan dar li senegal tolloo su la yalla tan nga nek elimani musulman ci jani yep bu la ko yàlla mayee may na la lu rëy te loolu seede naa ko si moom. Seexul Xaajil Abdul Aziz radiyallahu taala anhu dafa nekkoon ruknan aziman fi haasa diin al islaami ponk bu rëy la woon boo xam ne taxawoon na ci taxawaay bu àddina dootul fàtte ci jëfandikoo sharia bu baax sàmm aqiqatu muhammadiye bu baax doon def li ñuy wooye islaahu saatil bayn di defar ay diggante wax nga ni nit la woon koo xam ni ku bëggan jullit yépp la waaye romb na foofu ku bëggan al insaaniya nit la bëggoon ak fu mu askanoo waaye bëggoon na nit ngir nit yàlla mi ko bind moo ko moom te daa fonk yàlla tax mu fonkoon lu yàlla fonk te yàlla jaam yi lim ci gën a fonk mooy nit moo tax daana taxaw ci luy defar doomu aadama jamono bu nekk bi gané jamono suñuy nop hajj Malik Si radiyallaahu taala daf ko yëkëti ngab ko daat ne ya uddati ya shiddati in lam takun anta faman wax joju buñ ko firi won rek mu doy sëkkub émission ya uddati ya shiddati in lam takun anta faman maanaam daf ko wax ne ci misaal yow sama ngànnaay li yow sama waruwaay wi mu ngànnaay ak waruwaay waruwaay wi mooy li nit di war pour xare ji wala aadiya ci dabaxa mooy waruwaay wi ngànnaay li mooy li muy ngàbb bu demee ci xare ba mu ne ko ñaar yooyu mooy yow yaay sama ngànnaay yaay sama waruwaay daal di ko ci tegal nag mu buddi leew sax ku muy doon loolu la ko ci tegal mu buddi leew sax ku muy doon mu doon nit koo xam ne kii loolu way juróom bi séentu woon ci moom tuula xayaat yi dundam gi yëpp mus cee teggi tànkam musul teggi tànkam ci loolu ko way juróom woo waxoon in lam takun anta faman Haaj Abdul Aziz jàng na jàngale na euh, yare na bile bés mënee su ko fàtte jooyu xol lañu koy jooy teg si di ko ñaanal tey ñaan yàlla taas ñu si barkeem. chaque année ñoo baaxu di ko ñaanal euh, li ñu si mën a wax daal mooy ñun taalibe Cheikh daal bés gënul màgg bés boobu si ñun. ay jàngaleem di wéy di des ci xel yi jëmmam di wéy di des ci xol yi. li ñu gën a yéem ci moom gën ñoo marqué ci dundam moo di bàyyi gi mu bàyyi yàlla xel ci wéetam ci wéttalikoom ci tukkeem ak nekkam biir senegal yàlla moo doon wettalam ci lépp lu mën a doon mais yi ma gën a marqué ci ci dundam mu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu moo di jikko yu rafet yi mu làmboo te mu jafe ci jamono. soo masaana toog mu toog dalay wax rek wutal bindukaay defe naa yéen ñëpp dégg ngeen xasida googu mu tibbe ci xasiday yi Eh, di ko tuddee eh, eh, daarul xabib yi noonu daarul xabib mel nag noonu la am njàngaleem mel noo ngi fàttaliku mas na noo fekk dëkk bi ñuy wax ca Saalum bi mu agsee kàddu yi mu yëkkati ci wàllu jàngale mooy doomi soxna lum def lu dul jàngale jàngalee ko gën bokk na ci njàngaleem nag kenn ci njabot gi lu ma turam dafa mas di jangale mu di ko déglu ci batu muhammad muhammad rek lay wax muhammad rek lay wax ba njàngale ba jeexee mu ñew ne ko man di barab mu ne ko bul ma waxati bàyyi ado ah, sama wae, mu ne ko sa la waye ki ko doon wax muhammad legi, diko ko te waxo sayyiduna moy sama sang man comme nangoo nangoo ko wax ma waxati man mu ko tuub naa ko bàyyi. laaj bi bu ñu ko dee sampaat kilifa yi dañuy sawar sidi di si tontu Cheikh Abdou Aziz ca jikko yu rafet ya Cheikh Abdou Aziz sa jëf yu rafet ya. dafa donnoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni jikko yu kawe la amee woon comme ni ko yàlla waxee wa innaka la ala xuluqin azim yow yonent bi am nga jikko yu. مجيو كاوي بن ويكت بنيو امير الشعراء مي احمد شوقي دفا يوحني صلاه امريكا للاخلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقيم من سمبر يب ميغي باخي تي جيكو نغا جوبنتي سي جيكو دفاركو سمبر يب جوب مام عبدو نيب نين دوندي وون اك moom mooy dafa amoon jikko te jikko Seydina Cheikhul Xatmi Tijaani nee na képp ku xamul yàlla jeexoo si moom doo am jikko te moom Abdou ñëpp niñ dundee woon si moom mooy soo ko xoolee rek amoo sikk ne mag ñoo ñuy wax Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu Xaaji Abdullahi radiallahu anhu Serigne Touba radiallahu anhu ñoom ñëpp danga ngay ne am nañ benn miniature bu teew boo xam ne mun nga leen ko xoolee. bokk nañu ndab sax jëfandikoo kon loolu euh, maa ngi ciy fàttaliku jitaay boo xam ni danoo dem gàmmug Tiwaawoon maa ngi ànd ak mbokk mu ñu wooyee Serigne alxaaji Mbacke Abdoul Khari ak ku ñu wooyee Serigne Sidi Bousso moom bi mu ñëwee mu dalal nu li gàmm gi xumb ak li mbooloo mi bari yëpp danoo yittewoo bi ñu ko nee Mbacke ni ko buso rek dafa dagg rang bi yëpp waxtaan ak ñoom ba yóbbu lu nu ci benn dal. bu ñuy wooyee kër alaaji Njoogu Ñang maa ngi fàttaliku bis boobu bi ñu teqali ko ma bind ko benn bataaxel boo xam ni bi ma nekkee Touba la bind ko alxaaji Malick muy bind benn bataaxel boo xam ne donga daara la waaye ci bis boobu nu bokkee añ bi bi ma seetloo jëmm kër gi am na ko wax keroog dama ko ne raaytu saiman yaqtulu l iqda walqila bi sayfi wi amin walmahabati walhula Eh, tey gis naa kanam gu leer goo xam ni bu fekkee nagu mbëggeel man da koy suuxat da koy jëmbat waaye cofeel maanaam mbañante moom daf koy rey sànni ko ci àll ba raaytu saiman day dayfahu wa yulihu waj an baasiman mutahallila ki ma gis kanam la goo xam ni eh, dafay belli ci kanamu ganam dafay kontaan ci kanamu ganam te dañuy wax ni bernde gi gën a mooy tàllal sa kanam ci sa kanamu gan. donte nag woyofam tollu woon na si mu doon sàkku si ay jegeñaaleem ñu bañ a gaawtu. mu ne ma Muxtaar ma ne ko si mu ne ma leen ngeen xam ci man moo di góor gu ñuy wax Cheikh El Hadj Malick mooy sama waajur wu ju ñuy wax Soxna Safiyatu Ñaŋ moo ma meññ mooy sama yaay loolu ngeen xam ci man maa leen gën a xam sama bopp yàllaa ma gën a xam sama bopp bàyyi leen tagg yi ngeen may tagg teel na. bàyyi len ba ñu teeri ci kanamu yàlla bañu pesé balance yi xam kan mo disle xam kan mo woyofle foofu la ñu war a nit waye tagg teel la te loolu xam nañ ni mbax rek tax ak wàcc ak jàngale waye kenn werantewul ne mi ngi bok ci diwanul muminina min ar-rijal alladhina sadaqu ma ahadullah alay te yàlla nee dana len leen fay de li yajzi allah fa minhum man qada nahba yàlla la ne ko ci jëmmam nekatu fi waye ruham ak jëfëm ju baax ak njàngaleem ak yaram ak tegginam ak orientation ci képp ko bëgg lu baax du fi jóg mbokk mbokk li yajzi allahu sadiqina bi sidqihim insha allahu yàlla boole na ko ci mu ne ma xam nga lu ma bëgg maxtaar ngeen di moo ko ñaanal ma ne ko déedéet mu ne da ngeen naa yàlla sa jaam bii ñuy wax Abdul Aziz njortal jaam ñi rafet na ci moom yow yàlla yàlla boo tas seen yaakaar mu ne ma yem leen foofu mu ne ma ndax àdduna dafa xamul këru jëf la te nit ki mën naa jëf lu baax lu rafet dama dem ba naagu gis ci boppam yàlla mab lépp àdduna dafa xamul ne ma kon boog tagg yi teel na dangeen ngeen bàyyi ba ëllëg ci kanamu yàlla foofu lañuy ñuy tagg nit. wax waxaat du doon bari wax maam Abdou Aziz Sy Dabakh dafa nekkoon ku bëgg njaboot. ñëpp la jaboote woon daan nañu woo ba ñu ñëw ñu toog mu ne ñu man awma néegu ndey ak néegu baay yéen ñëpp laa yemale. te li ma bëggal sama bopp ëllëg moom laa leen bëggal su ëllëgee sama yéene ci yéen nag ca kanamu yàlla ngeen koy xamee su dee ci ñi nga xam ni nag yàlla dogal na mu génne leen ci deretam ci waxin mu jur leen ci deret jur leen ci pas-pas ak cofeel ak bokk jëmuwaay ci di ko roy teg tànkam fa ñu ko teg suñu tànk jéem ko teg fa mu ko tegoon daan na def ñaari ayu bés yu ne Pape Makhtar Kébé la ci mu woote waxtaan su ma sañoon ngeen mel nii su ma sañoon ngeen di def lii suma ma sañoon ngeen fonk seen diine daan nañu wax ni seen diine bu mu xam seen soxla. du beddi te it du xawi suturaay njaboot. du weer njaboot muy benn bu ñaareel bi itam mooy du gedd njaboot noo mën a mel boo defoon benn loo war def tey ci suba mu yedd la. ngoon nga defaat ko du tax mu ne kii kat naa génn ci moom parce que waxoon naa ko tey ci suba mu répété waat ko ci ngoon kon man pare naa ci moom sutura boobu daana ko yóbbu ba oustaz su ma defee dara man maxtaar mu war maa yedd suturaam àgg na ci dana xam ne maa ko def mais dafay woo njaboot gi yëpp ñu bokk toog mu ne dey ah nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam te xam na ne man maa ko def mënoon naa jaar ci sama tur mënoon na maa weer waaye du ko def ñëpp lay boole wax te loolu daf cee roy suñu borom. bokk na si lañu ko doon bàkkee mu di dox mbokk tey rafetal jëme ci ñëpp. ñoom noonu lañu doon dundee moo tax maam Abdou bi mu ñëwee noonu la meloon ak njaboot gi rawatina ki nga xam ne mooy saahibul fayda di Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñëpp wax na ko wax yu bari tagg na ko tagg yoo xamante ni ku dégg arab xam ko xam nga ne maam Abdou bii nii amul benn kañaan bu nekk si xolam ndax bayit yooyu wax na ko yaa nuqbat al ulama kansul masakini شيخ المشايخ فقوم النفس بالأغلاق تستقم mu ne sa mbir yëpp mi ngi baaxee ci jikko na nga jubbante sa jikko defar ko sa mbir yëpp jub maam Abdou nak ñëpp niñ dundé won ak mom mom moy dafa amone jikko. maam Abdou lu gën jëfé la nekkon moy kilifa gu yaru kilifa gu yaru go xamné soko xolé da ngay yek yar bi nga xamné mom moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi tumma amarani bi makarimil axlaaqi sama borom moma yaral bopam rafetal sama bi yar digal ma pour ma am makaarimul akhlaq moy jikko yu tedd manam mom boko xolan rek lolou la lay ñëk jàngal at bu ne au moins depuis 12 ans man ak sama doom Oustaz Ndour bu nga ci wal sama ben yu xamante maak mom ñoy ànd dem nañu Touba jëpp yoon ci waa woon foofu laa bokk fofu la dekk parce que suma sœur bu mag ki ma bokk ndey ak baay kii de Kandé Kay Elimane Palmarin moo takkoon ma sœur ami Amina Aminata ma bokk nekk ak baay ba taxoon suma papa bi nekkoon animiste ci at yooyu mu ne comme doomam bu jigéen bi mu ngi ci ci ci alxuraan papa de musulman ma nekk katolik yàlla kontaan di nii la ñu buggee Sénégal waaw kenn duñu xaaj duñ ko nangu amul benn nitu diine bu fi nekkoon di dund lu dul ni mas naa wàcc ci sa kër di la siyaare amul ku fi mas a jógee lu dul ni jël na xalimaam di la marsiyal kon loolu la ëmboon mbaax googu la amoon ku ne xam na digganteem ak Maulana Cheikh Abdoulahil Ahad ci soppante gi ci bëggante gi maa ngi fàttaliku jitaay bu mu fa ñëw boo xam ne dafa ñëw wàcce ci oto bi ni mu bëggee xam-xam daal di defar ay bëyit yu mu askane Cheikh Abdoulahil Ahad سي عبد الله احد ولبتي كيدي مومي تام ديفات اي بيت جوخكو نون لا نيو تخليكو سي سين بير داجي بوبولي نين سين نياري وو يوي صاح بما كو خوله داما لينا داجالي وخات سي نيوم اي تاغ كيروغ لا تي واخني اقام الصعيمانا لمولانا وعدة تسر جميع العاص قلوبا لم تعيش بتعذب سونو نياري كليفه داجي نانيو بي نيو داجي نك اندي نانيو اك بنو غو خامني كو بغلو باخ دنجي بيك نيان نيو داجي saliilum xadiimil Moustapha wabnu Malik doomu xadiimil Moustapha ak doomu Malik ñoo daje ñoom ñooy ñan mu siila toqa wal iqdi ma kulli xëy abi ñoom ñi nga xam ne fu ñu fekk mbañeel sànni ko ca àll ba fu ñu fekk ndëngte sànni ko ca àll ba. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh mooy ñetteelu xalifu maam El Hadj Malick Sy di doom ci moom moomee ak soxna Safiatou Niang gane woon àdduna ci atum 1904 sa Tiwaawan. ay jaar Don doon lu ràññeeku lool si biir 1965 ca sommet islamique ba amal Chamak, Mam mam Abdou Aziz Sy radiallahu anhu dal di fay ràññeeku lool ci ay kàddu waaye ci arab Mam Abdou Aziz si dabar di waxtaane Serigne Adi Touré doon lu ko moy tiofel go xamni seigne hadi radiyallahu anhu amon nako ci gorgui waye gorgui itam am ko ci mom su dan waxtan ci seigne hadi day jóg tok waaw nee na jamono ci jamono imam Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu len ci ay mbok yu ñëw ci maam mawdu niko dañ la soxla won mu ne len mba jàmm la ñu ne ko dal ci digante hadi ak abdu njàng meek yar bi mi ngi waji ep metti na suñu señon dal mu wàññi ko wala nga seet keneen koo ko jox góor gi ñu ko nettali lii nee na maam Cheikh El Hadj ca tey ga ak dal ga mu ne leen waaw mel na ni dégg naa li ngeen wax baax na ni kilifa di def ba daal di woolu Baye Abdou mu ñëw waxtaan ak moom ni ko dafa mel ni day diw ak diw ak diw dañ fi ñëwoon di wax ni daal sa digganteeg sëñ Haadi yar bi metti na euh, ñu lay jooytul daal lan moo ciy sa xalaat mu ne ko ah Baye amaana li ñu wax dëgg la de. waaye de ku bëgg a baax mën ngaa nekk ak xaadi ëllëg ku bëgg a baax ëllëg soo sañoon nekk ak xaadi wala nga daje ko mel ni moom nee na moo Maodo jox ko loxo ni ko doom soo ma tontu woon leneen lu dul li tas sama yaakaar. maam Abdou Aziz Sy Dabakh làqu na naam waaye bàyyi na fi ay dénkaane mu doon lu ñu mën a jàppee ndono. bi sama pap Habib jiitoo ñu ñëw jaale si ko ba war a dellu bim ñu waajalee. tàgg waxtaan ak ñun ba pare ca néeg ba keroog ma préparé woon benn magnétophone bu yem ak benn kaset ni ko papa dama bëggoon nga dénkuñu ci waaye ci xiram ci mbaaxam daanaka cassette ba su ma juumul quatre-vingt-dix minutes la quarante-cinq minutes yëpp ay dénkaane la lam ci doon dénkaane bokk na ci na ngeen ñeme wéetaay na ngeen ñeme rafle nangeen ñeme xiif na ngeen ñeme ñàkk bu leen jaay seen ngor bu leen tuur seen ndoxu kanam ci kanamu kenn ku dul yàlla seen soxla bu ko kenn xam ku dul yàlla su ko xamee ba pare nag fu mu ko jaarale ngeen xam ni fa la ko jaarale pour mu faju ndax yàlla du wàcc di fajal kenn soxlaam waaye am na fu mu koy jaarale su boobaa nag mën nañu ngeen sant yàlla sant kooku te ñaanal ko yàlla. dabaax fu ñu ko tuddee xel yi dal di dem ci dal gi nga xamante ne daloon na ko lewet waaye nag bari fulla lool di fësal dëgg. ak fu mu ko mën a fekk. mag la woon boo xamante ni dafa lewetoon dafa lewetoon ndax danga koy yëg si moom ndax lewet rek moo lay may nga nooy ba ku nekk mën a jëflante ak yow waaye bu dëgg jotee da ngay wax ne maam Abdou est-ce que du gaynde waaw jikko yooyu noonu tey lu xew Sénégal lu xew si aalimul islaam yi da nga yëg ne dañoo soxla maam Abdou. lu leen adduna du kër duna du kër adduna du kër teranga yi leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole bu ñu la denk te mu war la ëllëg di rocc ci doole ji ni ki Lamine nga tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru lan la ñu xam ci la Lamine ci mu nekk léegi ku ci xam dara yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala ca jamono ñoom Lamine Lamine Gueye la tàmbali woon discours am yooyu gëmoon nag ne wax dëgg wax dëgg du wàññi wërsëg du tax a gàtt fan mu tegoon foofu tànkam waaye nag bàyyi na fi turaas ñim fi bàyyi te yar leen te jàngal leen te defar leen kenn xam lim tollu ay at jot na ko def ci xilaafa gi maam Abdou Aziz Dabakh làqu na waaye tey dafa mel mu ngi fi. si ay œuvre am nag yow xamante ne bàyyi nañ ko fi mën nañ ci jukki lu mel ni juma Tiwaawan bi nga xam ne fi ñu toll nii ñu koy si nekk ci liggéey boobu di ñaan yàlla yàlla ko yàlla may mu fekkee ko te ko te julli ci ñu nag julli ci eh, di lim fi. inauguré si ay jumaa jàkk si réew mi du jeex mun naa si jukki rek lu mel ni juma grande mosquée bu Gueule Tapée bi nga xam ne fekkee nañu fu mu yendoo nekk si juma ja ñuy wut luy defar juma ja jël alalam def ca daan si jullee chaque ajuma loolu fekkee nañ ko œuvre daal si lu baax wallaay lazim géej la mu amoon copeel gu ko nit ñëpp ëmbal ci gépp anam nag rawatina ci tarixa bii nu bokk di tarixatul muridiya am na fuñ ko wàcce woon wàccuwaay bu réeree réeree ba boo tàppee woon turam ci biir internet bi di nga gis ay discours yu bari yoo xam ni taalibi murid ñoo ko bind ci moom ci wàllu histoire am góor gi daal li ko may li mu am mooy jël boppam jox ko yàlla nangul yàlla ci ay farataam ci ay ay nawafilam yàlla tàggatal ko xolu jaam yépp nag dugal ko ci biir am na doomam ju ñuy wax sëriñ maam Ousmane si di caatam mu góor yal na yàlla guddal fanam te may ko wér ak i mag a mag yi tabaarakallaahu jigéen ñeeg góor ñeeg képp ku Cheikh Alhaaji Malick jaboote nee na Cheikh Alhaaji Abdoul bi mu génnee àdduna kenn suulu ko ci suuf ci xolu jaam ñi lañ ko suul kon loolu moo ko may cofeel googu إذا الكريم تعالى بمنتقمين الدنيا وضرتها ومن علومك ما اللوح والقلم وكذا الغنى وكذا المنى دار الحبيب قلوبنا تهواها